diggante tisbaar takku tàkkusaan ci weeru baraxlu yàlla suñu borom dafay woote ca kaw ne yéen samay malaayika lakk leen téere yi ñaawtee fi ki wax ñaan gi salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ko ñu indil leen ñaan boo am solo boo xam ne danañ ko mën a def si li des si weeru Shahbaan bi dana tax yàlla jéggal la say bàkkaar yëpp ndax jéggal lu am solo la ndax nit ki danay sàkku dara mu të ko ticc moo xam wërsëg la muy sàkku moo xam place bu muy wut moo xam tukki la bëgg wala leneen fekk ne li ko xañ mooy bakkaar yi mu am kon njëkkee ñaan yàlla ñaala jégal la dana yombal nit ki eh, mu am daraja ci àdduna ak alaxira kon ñu bàyyi leen ngeen teewlu salaamaaleykum wa rahmatulah bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dóor nga mën ko njëkk am diggante tisbaar ak takkusaan ci weeru baraxlu yàlla suñu borom dafay woote ca kaw ne yéen samay malaayika lakk leen téere yi ñaaw tee fi ki wax ñaan gi lépp lu mas a def ci kaw suuf bis ni ki tey lakk leen ko ba mu doonu dóom loolu sëñ Tuubaa ko bindal boppam moom laa bëgg àndandoo ko ak ñëpp mm-hmm. bu ko defee nag ñi nga xam ne mënuñoo jàng mm-hmm. damaa bëgg di wax ñu ciy topp ndax bu xawee gudd tuuti boo ko ba noppi ñoom duñ ci mën jaar mm-hmm. léegi istixfaar la jéggalu suñu borom la da ngay wax ne astaxfir مل الذي لا إله إلا هو الحي الخيوم وأتوب إليه توبة حب ظالم لا يملك li nafsihi darran wala nafhan wala mawtan wala hayatan wala nusuran foofu la yem foofu la yem nee képp koo xam ne wax na ko diggante tisbaar ak takkusaan ci weeru baraxlu yàlla day woote ci kaw ne yéen samay malaayika lakk leen mboolem téere ñaawtee fi ki wax istifaar gi bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am